mbetteel la wala du mbetteel en tout cas lu ci mën a nekk rek askan wi nga xamante ni ñoom ñoo lal seen bagage fii ci mbeddi Grand Yoff yi tey jii nag dañu leen yëkkati dajji nag ay cantine yu bëri jaxase ay bagage bokk na ci maire yi nga xamante ni seen i bërëb lañu ko dajji. fu mu toll nii suñu bagage yëpp mi ngi ci biir li ñu war a jaay tey yëpp mi ngi ci biir sama mango mi ngi ci biir sama madd mi ngi ci biir sama njamaa mi ngi ci biir te foofu suba li ñuy ndékkee sax xaw ma ko dégg nga. te sama ndax moom ci laay teg. bu ma jaayee ñaari fan jënd ci sama ñëw teg. ñoom it dañoo war a seet nag. waaw dañoo war a gaaw nag seet na xam nañ ne lii ñu def baaxul ci jaboot di arrangé wu ñu ndax jaboot ju ne la ngay jaay ci nga bëgg a di ci nga bëgg a la waaw lii nag moom gënaluñu Macky Sall nag na changé gouvernement bi ndax lii moom du dëgg du yoon teguñu ko fenn maa toog rek yëkkati woon nañ fi ñu laal suñuy bagage léegi ñu ngi dajji place fii lañ daan toog di jaay bu ñu jaayee fii ñu laal ñu léegi nag lan lañ bëgg ah, wax nañ ñu kaka dàq ñëpp lañ dàq yóbbu seen i bagage sam yóbbu si am na ñoo xam ne man yóbbu nañ samay bagage ci yoon bu mujj bala paase dama leen a bàyyi ak yàlla ak yonent ba yàlla am na lu ne. ay magasin ay bagages yu ñu jaxase loolu nag moom mooy décor bi en tout cas la ci mënta nekk nag waa ji moom. ab bagage am bokk na si bagage yi nga xamante ni dañu ko yàq waaye nag mu ngi gërëm maire bi nga xamante ni daal lépp loo xamante ni daal da ko bëgg mooy defar Grand Yoff. wax dëgg yàlla bagage yàqul ndax bi ñëwee wax dëgg yàlla may nañ ma temps ma génne samay bagage la samay bagage wax dëgg yàlla ñoom wax dëgg yàlla responsable bi ànd ak ñoom yoon wi moom wax yàlla ku dal la. yàqule bagage am na ñu si yàqule bagage waaye nag euh, wax dëgg yàlla joxoon nañ ñu moom joxoon nañu kayit. Euh, bi keroog samedi la ñu joxoon kayit waaye euh, xam nga commerçant moom euh, moom pour mu génne bagage am lu ñuy waaj la quoi waaw. ñu yàqal benn askan bi nga xamante ne nii nii nii amaana foofu ñu nekkoon noonu ñu ngi fa doon daan seen doole ñu ngi fa doon gis seen bopp pour man. nit boo demee boo koy délogé si fenn foo xamante ne teraangam fa la nekk war nga mun a am loo xamante ne mu nga ko jox si la lay jàpp pour suturloo si mais du yoon nga gis benn père de famille boo xamante ne si gox bi la dëkk juddoo si localité bi amul fu dul localité bi nek di taba taba en tant que la, la mairie nek war ko soutenir pour à que mu atteindre ay projet defuloo ko nga ñëw di ko bi maire bi sumbu nako nak bu yag dalé ko nak fa nga xamanteni modi padwa tay ji nak fi ci poste bi ñom ñu ayé askan yu nak ñu bari nak am tit ak njaqare waye nak amna ñeneen ño xamanteni nak ñu ngi koy rafetlu wax dëgg ligue yu mairie la te fiñ ñun fi ni nu maire bi gëna rek wa dañ ci contane waaw waaye nag wax dëgg yàlla dañuy ñaan toujours rek maire bi ñi muy après ñi muy yebal si terrain bi nañ ci gën a seen xel quoi di dem ak seen sago xam ne ñun ñoom ñoo bokk Grand Yoff waaw parce que Grand Yoff bu rafetee ñun ñëpp la rafetal waaw lii moom kontaan nañ si bu baax euh, l'essentiel moom liggéey leen tax a jóg nañ liggéey rek. waaw di ko rafetlu rek di ko rafetlu parce que ñun Grand Yoff moo ñor ñun Grand Yoff moo ñor bu ñu jógee pour defar ñëpp si war a kontaan ñëpp si war a ànd. tey ñooy nii affaire de réaménagement public la ñuy def pour waajal pavé yi waaw bu ñëwee nag si liggéey bu mel nii foog ñu wax ak dëkkandoo wax ak borom boutique yi wax ak ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci kaw euh, pavage yi ak territoire yi di jaay yaa ngi dégg ñooñu nag waxtaan nañoo ak ñoom déggal nañu me nag am na si ñoo xamante ne dañoo xaw a yéex tuuti parce que jox nañ leen sommation at ñu toog di ko waaj di ko waaj ba tey jii nii la yàlla dogal ñu tàmbali liggéey boobu noonu pour defaraat Grand Yoff mu xaw a jag tuuti. xam nga vision doomu aadama yi gën a mun a leer yaa ngi dégg bu ko defee salte yi sax day xaw a wàññeeku. leen félicité ci act bi ngeen def nii donc man di encourager le maire de Grand Yoff muy Madiop baaxawuma di wax ci tele mais tey il est temps ñu wax parce que li ñuy def nii di di di di di defar Grand yof dafa am ñu ma romb sànq léegi xamuñu woon ne man ci mairie bi laa nekk mais ñuy wax ay kàddu yu ñaaw jàpp na ñun dañuy yàqal. wa marché bi wala dañu yàqal wa koñ bi té alors que demeewul noonu dañu bëgg ñu comprendre benn affaire gis nga bo bëggé défar dara il faut que nga dindi dara pour def fa dara li ñuy def ni bëgg pavé tali bi c'est forcé parce que Grand Yoff ni mu meloon bu ñëk bo bëggé changer xar Grand Yoff il faut que nga dindi dara c'est forcé mais pour ñu comprendre que ne euh, le maire de Grand Yoff mom dafa juk taxaw ngir liggéey Grand Yoff il est temps mu def ko faire des décision pour le mais dama bëgg comprendre que ne qui kenn dañuy defar ngir xar kanamu Grand changer Grand pour mu changer c'est ce a maire de Grand nous muy encourager dire ñaanal mu may ko xolu davantage ndax di nga dégg lu ne mais bu mu top loolu. dama Grand Grand Grand maire na fi comme. wante kii di Madiop Diop suñu maire monsieur le maire mu doon jeune doon xale bu ndaw ñëw fekk ñu ci ci ay kàmb ay pax mu ñëw di defar Grand Yoff cat ba cat lépp lu fi naat moom moo ko defar te liggéey bii ñuy liggéey dafa doon liggéey boo xam ne ñun jeune Grand Yoff ñu fi juddoo ba léegi ci kekk la ñuy dox ci suuf dàll bu baax sax mënuñu ko am tey bu waa ji ñëwee du ñu liggéeyal di pavé di karole di defar muy rafet ñun doomu Grand Yoff ñun ñëpp ñuy jeune ñun ñoo ci war a jéem a jàpp ci xar suñu tànk tubéy ñun dañu bëgg mel ni Sicap El Hadj Omar Gueye moom mooy ndaw li nga xamante ni moom la maire bi yoon yónni ngir nag mu jiite liggéey bi mi ngi xamle nag ne li nu mel bettul benn yoon ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy commerçant yi ndaxte nag yégaloon nañ leen ko bu yàgg. Grand def du lu bees donc euh, daan nañu soo seetloo sensibiliser ñi fépp foo xamante ne dañ fay def travaux te donc loolu la ñu jël privilégié ko jaaroon nañ fi nag mën na 6 mois ci ginnaaw wax leen ne leen travaux yi day tàmbali mais dinañ commencé pharmacie Podoa remonter. après la deuxième phase bi nak dina commencer feu camp bi wacc ci souf ba police Grand marché bi donc deuxième phase bi parce que première phase na donc deuxième phase bi lañ nek di def te rabbi pour préparer le terrain euh, pose pavé après mo des mais nak amul kenn ko nous ne wax dëgg yalla nek nga ci axe bi te ko da ngay am bañ la préparer mais yëg nga ko yëgaat nga ko parce que sensibiliser nañ ñoom ñëpp woo nañ leen ñoom ñëpp waxtaan nañ ci ak ñoom de telle sorte que wax dëgg yàlla liggéey bi suñ koy def it dina gën a yomb ci ñoom jël ñu bagage kenn fii ne camion bi kii mooy ñëw ci fourchette bi dindi li ñu war a pafe dañuy pavé mais wax nañ ko moo tax kenn ngaangul ñi ngi ñëw dindi yaa ngi gis gis nga ñi ngi ñëw dindi seen mbaari kenn ngaangul seen bagage mi ngi seen biir magasin yi.

dina ñëw ci nawet bi nag mais dinañ fexe ba adopté wu ak nawet Grand Yoff ñëpp xam nañ nawet moo tax soo xoolee ñu njëkki fële zone bi nga xam ne mooy gën a ci nawet bi foofu la ñu njëkkee ba travaux yi pare na foofu donc deuxième phase yi mooy fii ñu nekk nii te fii bokk na ci zone yoo xamante ne wax nag yàlla nawet su ñëwee parce que dafa kawe nawet su ñëwee duñ sonn torop liggéey bi nag nee nañu dina diir lu tollook ñeenti weer.